chuku chuku eh chaka chaka atorojo morojo amorojo torojo koor gi tàng na. koor gi day mu metti na. waaye yow mi da nga dul jógi taali ay. yow sa bopp bi bopp ñii rek. xanaa ku létt ba heure bi nag mën a noppalu. bopp kii topp tent yi di tent ba seen bopp yi yàq bëgg tent te lii nga ni baaxul ci karo doo leen mag nga taale karo. yow waxuma lool sax te sa toogaay létt bi tey li nga toog yàgg na moom mi dalaa war te mën a toggal reer na. yow sax amoon njëriñ sa yaay. la xamal lenn bi. ba pare moom dafa war a xale. Pape Mbaye li muy moo fi dàq la ko mën a la kon da ngaa nekkoon si. grand Pape dégg na la. jaay jaay waaw yow. loolu lay ju. mais programme bi kanam. programme bi yabala ba nekkoon di way li tëggkat yi waroon na wayaan lépp yabala ko wayaan def ko si poosam. dëgg la baykat yi amuñu xel. man tos dama namm programme ndax koor gi. mais soxna Diarra. waaw ñun de am nu sa ngërëm. laay. loolu am na de noo kii grand. barke Seydina Mohamed bés bu la wutalee wujj. bis bu ko wut. Eh, waaye da ngeen a baax rek. <laughs> Eh, non dama ko bëgg. <laughs> balaa ngay xam ne moo baax nga dem si salon chou. allahu akbar. dama salaw mais la géer na daal. lépp lay maye. waa fiis waaw daa am bu naan nga jàpp sa yoon di dem. mbataas mbaay def ko ndànk gën. kaay moo gën xoolal ne yàggul dara moo gën. lu tax loo gaaw gaaw. tal moo taal tal roppalaan. fii xam lu bëgg. yow moom aada dégg naa li nga wax waaye avant nga doon gis ki man la woon waaye fii na ngeen fexe ba bu leen ko fi tëgg lan la lan la am ne liñ fa jot a laal saf na rek. waaye yàqul ko yàqul dara yàqul ko dara yàqul ci koor gi rek waaye yàqul ci dara waaye. def ko ndax def ah. ko ndax gën. waaw. yàqul dara moo gën. moo gaaw gaaw tam mu tar tam mu polaar. xam nga lu ma la leen boo paree ràccu di xoox. naan ma ndogu di anticiper heure ndogu li bu ma fontoo. man damay rey dama rey dama bëgguma dee war na yàlla bëgguma dee. ba ma xam ne boo jógee maay sonn. Eh, bëgguma dee waaye bëgguma dee yaa may rey de. wari na wari na wari na heure ndogu ma bëgg ngeen laay waxal. waaw ngeen ko jàpp gaam la de. ah waaw li ma la koy daaneel lii wa tax ma gën laa bëgg te li lay sippal ngoon man la yow lii lay. waaw waaw lii lay yow man maa dëkk ci biir kër gi. man di fu mu meree. ah man daal maa waaru. yéen a ngi dégg xanaa ne ko leen ci weeru ko. ah ba ci lan xanaa du kër ngeen. ñu jaaxal soo seen dëkkandoo yi sax. mooy yow aj nañ suñuy sabar ñu yàgg ñu yor suñuy eh, boole. xoolal déglu ma laa wax. na mujj tey ngeen def lii ci kër gi dégg nga baal li ma la wax. pour weeru koor yéen a koy def weeru koor yéen a koy def pour lan. ngeen seet la ne. dégg nga baal li ma leen wax. grand mais génne woon sabar yi ñooy géex bidon yi nii rek. ngeen di géex ci bidon yi ak seen gémmañ yi moom ngeen di wax ci sabar yi leen benn la la ngay teg ci sabar gi ay wax la kon bu leen ray man mu toll yow nga ma jégalu rek. Ah, kon nga def li ci kër. compétition rek ak ma kay demal ma marché man. dama doon dafa xale yi rek bu mag jëm toll nekk ci kër gi. d'accord su ngeen saa saa fële yi. d'accord ñu koy tàngu xol. gis nga lii ñuy def ah li ñuy def ci lañ ñun géwél bu nawet jotee ñu ajloon ñu suñuy sabara loolu am na bu koor jotee ñu ajloon suñuy sabara te li ma ci jaaxal jaax mooy weeru koor bi kam noo ñuy fay fenn <laughs> <laughs> sa métier programme nga yam dem teg sa atelier wala nga bàyyi sa liggéey dem koor loolu laa bëgg nga ko yow nag yow laay moom ma ko mën a génneel ñëpp lu tax aram ak nday xat lu tax amoo ko ko yor ba ma koy mën ñëpp laa ko ah, kon muuru koor dafa am retraite waaw mais dama ko doon def aw ma ko bi yoon. waa léegi bi nga ko amul léegi nag waroon a boole ñëpp waaye doo def ñii ah, bu génn ñi bàyyi ñi ah. ñooñu ba leen génn ah. bopp bu nekk dinaa leen démerder bopp. man tamit mënu maa génne bopp man eh, yaa sama complément de direct yi te yaa ma génneel. waa léegi dinaa leen génneel yéen ñëpp. tey la kon daal alaaji nee na dinañu génneel ñun ñëpp. fi nga ko da ngay gudd fan doo gaaw a dee yaa yor booja la léegi dana la booja la Adama nu yàlla bëgg a jaamaan nijaay ana sama nijaay ma dara dul dara ma lii ay ma dara dul dara sam bëggoo sàkket di fi ne xam la woon man dëgg la ay kon fii man la ba la xew te sàkket da ngay garu yaa jàppale yaa jàppale da ngay garu waaw waaw ni da cey garu lu mu tee sàkket da cey yaa jàppale mu ne kon lépp laa gën a wax dara lépp laa gën a ñëpp bi eh dugal yow. yàq ngeen kër gi yëpp. fi ne sama doom jaa ngi nii dafa njëkk war ngeen a taal loxo bi demoo maa doon ndaw meli ndaw kii saa dem ma. ba tey jóg ba tey dayu ma. ñu béy si sikkër sikkër ba ca àllu kër wala àll wala reer a jot. noos dem dem marché defar wasi noppal na la. taal ndogu jot na taal lan ngeen def ba pare ma yegg. da ngeen a ñemal langu jug leen toggi ndogu li eh. waa chérie doo ma rootal ma sangu nag dinañ ma ma sangu waay. xaaral waxuma loolu. kaay kaay kaay. ku moome ba di la rootal nga sangu bés. waaw mais dara newu ci ku root rek benn la. déedéet alaaji d'accord ma loolu. nag kii dem teen ba kii dem robinet ba. sa ban ndox nga ci sangoo. mélanger leen ko rek. xoolal dama koy pénancé. bu ma yab man damaa moome kenn du ma tànqal ndox. man naa sama place del fees na yéen seen tënk da ngeen di wut bu dee koor gi da laa jàpp ba xamee too ku moom la tey moo dégg na ko jëlti ko sim dëgg baax li ma wax kii da daan moome nga ko fay bàyyi di ñëw ci man mu ñëw suba yaa ko maa ko kaay fii maa lay roon ndox jox la nga sang ba mu baax jaar ni kaay ni da ñëw kaay kaay ni war ngaa xam ne war ngaa xam ne tëjoo saison bi kay comme tëjoo saison bi kay dama ah bii man kër bii kenn du fi am yaram waaw waaw man damaa sonn. gis nga booy dañoo ànd dëgg la grave waaw. waaye yow affaire yi muy def nii mooy la. ah booba jaaxal ñu ne taal leen doog a bàyyi ñu fi. xanaa kon yaa war a jaxasoo la def man damaa dama sonn damaa sonn ndax parce que. atutu yee Baye Modou muy Baye tutu man foofu laa may bàgg daal li may atutu yee Baye Modou